بالتواون تواون فيها اليمن للمتيامن ñoo ngi sant yàlla bu baax di leen euh, nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar dañu ñëwoon tey fii ci Tiwaawoon ziyaare si xalif général des Tidianes euh, sàkku ñaanam yitam ci guddi gi nga xam ni moom lañu ñu dëgmal di guddi Seyduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax kenn umpulewul ne ñoo ngi jëm ci ay jamono yoo xam ni coow yi bari nañu lool werante wi bari na lool jafe-jafe yi bari na lool moo xam dafa aju ci wàllu yorinu justice bi dégg ngeen coow yi ci am yépp moo xam dafa aju ci wàllu yorinu li yàlla wërsëgale réew mi ci ay ressources naturelles moo xam dafa aju ci wàllu xëyum ndaw ñi ku nekk xam na ni yooyu yëpp ay xeeti jafe-jafe la yoo xam ni bu ci saafara amul mën naa indi ay coono ak ay yëngu-yëngu te Sénégal jàmm lañu fi soxla moo tax ñu bëgg ñi nga xam ni ñii ñëpp yàlla jox na leen fi responsabilité ñu bàyyi xel ci wut ay saafara ci jafe-jafe yooyu pour que yàlla mën ñoo musal ci yëngu-yëngu yooyu nga xam ni mën na cee juddoo di wax ne rek ñoo ngi ziyaar mbokk yëpp di leen ndokkeel ci gàmmu gi di ñaan suñu borom may ñu ñu tàbbi ci échéance yii di ñëw ci bismillahi rahmaani rahim euh, génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin échéance nañ ne ministère def na benn publication fichier beeg yooyu ñoo euh, ngi ñoo ngi wax ne rek euh, li nga wax ci recommandation Nations Unies waxoon nañ ko bu yàgg ndax am na loo xam ne lii justice nanguwu ko droit international nanguwu ko moo tax ma wax ni bokk na ci xeetu jafe-jafe yi nga xam ni ñi yàlla jox réew mi war nañu ko jéem a saafara bala muy indi ay yëngu-yëngu ci Sénégal ñu mën cee jublu loolu aussi aju na ci fichier électoral beeg xeetu liggéey yooyu yëpp bugguma dugg ci détails yi ku nekk xam na ne daal puisque wolof nee na junj doy na boroom xel ku nekk xam na ne situation bi diis na ndax ëmb na ay jafe-jafe yu bare bari yu mën a jur yëngatu loolu nag na ci ñëpp bàyyi xel surtout ñu nga xam ni ñoo yore responsabilité assumer gestion réew mi